abonnez-vous xamal Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi وعلى آله وأصحابه عر الميامين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي والأخوات أعزائي الكرام أحييكم بتحية الإسلامية تحية أهل الجنة alaa wa hiya asalaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq di ko sàkk ci yéen ñaan borom bi subhaanahu wa mu boole ñoo jéggal di jéggalu tamit ci naaje commencé bi wax dëgg yàlla du suñu coobare yitte jamono ak xat-xat moo ñu xaw a jàpp tuuti moo tax ñu xaw a naaje li tax tamit ñu gën a naaje bu baax wax dëgg yàlla ma waroon naa fi nekk mais démb sama rakk moo bokkal benn papa yàlla dafa def mu wàññeeku mu jógee fii ma dem fa ma xaw a guddee trop moo tax baas bi xaw a naaj mais xëy na loolu su ma dal woon sama kaw kon xëy na dinañ delloo commencé mais loolu moo waral ñu naaje commencé ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana yal na sa yàgg yal na ci kawam yal na ko yëm raak yër mën ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di nuyu waajur yi fi teew yëpp kenn ku si nekk turam ak santam ñu ngi lay fekk fi nga nekk di la jox loxo di la wax salaamullahi aleykum wa rahmatullah bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ ndaw li waral lii nag mooy seeni doom da ngeen jël seen doom jox ko ya sayda mu di ya ni ku jël sa doom jox ko nit mu koy jàngal mu jàngal ko ba fin d'année bi war a jeex moo dëgg yàlla mu ne nañu dama bëgg ñu woote benn ndaje ndaje bi mooy dama bëgg xale yi ñu ñëw bëggal seeni waajur kon waajur bu ci nekk war nga mën a am pas-pas am yitte pour taxaw sa doom ci bis boobu yaakaar naa ni doom lu ko waaye defar rek danga ko lebal waaye wax dëgg yàlla bis boo ñëwee rek bu ko yàlla dafa defalee ba mu mën wallaay lépp loo bëgg si moom yàlla dina ko def mais bis bii ñoom seen bis la te bu ñu wootee waajur bu nekk war na mun a bàyyi yitteem ñëw wuyu leen comme yàlla def na am na ñu fi nekk naaj guddee nañu ñu bëgg rek tàmbali yëf yi balaa muy gën a guddi ndax élèves yi macha allah te ñoom ñëpp war nañu tari kon wax dëgg yàlla dañoo bëgg a tàmbali yëf yi rek balaa ñuy ibbi. léegi nag dañoo bëggoon avant ñuy tàmbali yëpp yi ndax fu ñuy dajee balaa ñuy def dara war nañ fa tudd tur yàlla muy téere bi nga xamante ne mooy alquranul karim léegi xale bii nekk sama wet moom laa bëgg a jox mu ibbi su bee ba pare rek après ñu door a dugg ci mbir mi bismillah allahu akbar la ilaha illallah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 innahu kana tawwaba bismillahirrahmanirrahim tabbat yada malu wa ma kasab sayatla naran zatalab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 لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sant bu baax di ko gërëm ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla def mag ñam mag mag bu am ñam mag boo xamante ne wax dëgg yàlla day nekk magam lislaam jël alquran bii muy jàng mu nekk def ko leer mu nekk ci dënnam di ko wax ne tamit yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla wéral ay cëram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu ñu ngi nuyu suñu imam imam Cheikh Ahmed Sy muy ki nga xamante ne tey moo ñu jàngal di def si di nekk si ñun yëpp moo ko di nekk ko def si ñun ñu ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yàlla guddal fanam yàlla wéral cëram yàlla yàggal ko fi bàyyi ko fi su bàyyi ko suñu kanam mu ñu yàgg tettee dañu yàgg gunge ba lépp lu ñu ragal ci yoon bi rek ñu demee si moom mu teg ñu ci ci yoon gannaaw loolu nag ñu dalal yaa sayda mu dugg ci mu ñëw toog ci tànt bi su ko defee rek ñu door a tàmbali yëf yi yaa sayda tafaddal yi Why don't you be there? No, no, no, no, no.

Aja. ak déglu rek ànd ak dal ñu ànd ak déglu ànd ak dal. jotaay boo xamee ne diine la jotaay boo xamee ne jottile li nga doon wax jotaay boo xamee ne jottile suñu borom muy wax bokk jullit yi bis bi tey. ñu ànd ak déglu ñu ànd ak déglu. bis bi tey bis njaboot la seen njaboot mooy tari. fekkoon ne leen mun ngeen ñu dimbal ñëpp ne teg dëkk bu xale yi ak lu ñuy natt moo gën wax yi yan boobu nag yan xale yi yan ñoo moom seen conférence seen waajur teew seen baay teew seen xarit teew seen maam teew na ngeen noppi ngeen may seen maam yi déglu ak seen yaay yi déglu yaa Seydi asalaamaaleykum ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla may wér bu yaram dina dem dinañ nekk nii ñu ñaan yàlla moomu yàgg danga leen nekk na te amul xaalis dama lay wax bi la métti na amul xaalis mbokk jullit yi yéen yëpp dangeen daw sa responsabilité bu njabootam toog ci këram ñaari fan rek xol bi xat da bari biriwi da nga nangam nangam ak nangam yéen yëpp ngeen jox Seyda Seyda dund ci toll juróom-ñeenti weer di ànd ak ñoom ci coono ci fuloo ci bi naka ngir ak ngeen seen ngeen seet ban yar lañu lañu ci def ngeen dimbal jàngalekat yi mel na Cheikh Sooy ak moromam man nii bu dee damay jàngale dafa ma jël waaye damay jàngale lu tax loolu ndax ñuy jàngale bu neexee eh, bu neexul ñoo gën a kawee dara ji ci aduna ñoo gën a kawee dara ji ci àllaaxira loolu man waxu ma de Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko wax خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله يد القرآن يوجد تبع يوينك تتر كر يلا يوعندك ولي يلا يوعندك يننتي وفهم مشان درجة لي تيترو دك نتكي سوف مكسل ñoom itam dañuy tiitaroo nekk ci suuf yonante te nekk yow laa ji ibn abdillah Seyda sa morom yépp ñu ngi dox ci adduna bi ñii dem France ñii dem Amérique ñii dem Espagne ñii ñii ñii yow ya nga tànn jàngale ak métti waaye na nga mooy bu ñu lay jox nii dafa néew de yàlla moo lay fay yàlla na fay yéen waa ñu ngi leen sant di gërëm كولو تي بنيان بنيان بجخ ومتم نقو دقل بممت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته انتو نيو لاي فاي وبا نيال يالا يالنا يالا بارس متنم غيا نيو بونغي كيبا كيانتي بي صلى الله عليه وسلم Hello. Nada Naka Muhammad Rasulullah Yonentu Yalala Wa Iqami Salate Gata Khawajode Wa e Itae Zakate Gajokhe Azaka Wa Saum Ramadana lahajol bale ga ademaka rawal bahare ya bahare maka sala kala ame wa antum bin bahare wa sala adını لكم بتحيكم إسلامية مباركة من هندية وي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينذر إنسان من غلي غلي من ماء دافئ لخرج من بين الظهر والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبرى السرائب فما له من قوة ولا ناس والسماء ذات الرجل والأرض ذات السجد إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فظاهل الكافرين عنهم ويدا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنينا تبتد صلى الله عليه وسلم نينا لا يؤمن أحدكم كان سيا حتى يحب لأخيه لدن لوبغا الخريطة ما يحب لنفسه أيها المصطلون القرآن أخائي وأماتي وإذا وهي الصلاة على बन का للحل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وما أدراك من تاريخ النجم ساخر إن كل نفس لما عليها حافظ فينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجل لقادر يوم تبرى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدح إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأعملهم كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم നിയനന്ത് ബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേന അബ്ബുസ്ഥാനു ഫൻ أسأل من السماء موغنا موغنا دي زمان والحق دغ أوصاء من الأرض موغنا يا تقول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 الذي فيهم مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهارا ماسا وبنيناكم فوقكم سبوا سجاجا وجعلناكم نومكم سباتا وجعلنا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم suñ yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ajibtu yéemu ajibtu yéemu liman li man ay xana bil mawti ku mu wóor ni dee am na kay fa yadoo kooku lan lay reetaan ajibtu yéemu naa ra a ajibtu yéemu naa ay xana bil naari ku mu safara am na kay fa yarti oo kooku lan lay kontaan ajibtu yéemu naa ra a duniyaa képp gis àdduna bi wata xallaw bi ahliha ak lépp lu nekk ci biiram kay fa yatama kay fa yatama naka ngay amee xel bu أجبت يمنا لمن أيخنا بالنا أجبت يمنا لمن أيخنا بالموت أجبت يمنا لمن رأى الدنيا كيف قس أدنى وتحلب بأهلها أغلب لنك تبيرم كيف يتمعين خنجي آمي خلف دال صدق الرسول الكريم وكل آمين وأنتم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى أيها المستمعون الكرام آبائي وأمهاتي أعزائي إسلامية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين تغتيت صلى الله عليه وآله wasallam nee na man saama ramadaana képp ku woor weeru koor imaanan mu ànd ak gëm waxe ak atte xufira lahu ñu déggal ko maa taxaddama mi zambihi lu jiitu ci ay bàkkaaram wa maa taaxara ak yu ومن خام ليلة الخدر كيف متهوى ليلة الخدر إيمانا مؤندقا وخسابا أكأت غفر له يدقلكم ما تقدم من به يجيت سأي بكارا وما تأخر أجمد صدق الرسول الكريم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله تعالى وبركاته barre kooku moom lu def dara baax lu ñu koy def salaamaaleykum. imaam sama kër. man la. est-ce que. man la. ñu ngi si jàmm. sa kër kër. en soxla. ñëpp jël ci biir. Bilaay. Amina. Assalamualaikum. Wow. Jam. Macam. Kenal sejak. Mana ada sudah. Ang sejak. Batu lagi. Ayo, sa, ina, Laura sa waaw xanaa xale yi ba xam ne kër ga di réclamé na fekk góor na ñoom ñu jàng alxuraan lu waral loolu. man de waxtaan naa seen yaay mu ne xale yi ñoo koy jàppale si kër moo tax boobu ba ah, xanaa xamoon na alxuraan lu ma def si. yàlla nee al alquranul karim alquran al qulub day setal xol wa sifaahu sudur mu raxas dënd wa qaala sallallahu alayhi wa sallam neen bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullukum raain waajur bu nekk aji sàmm la wa kullu raain mas'uul an raayatihi keroog yal barkiyaam yàlla dina la taala yàlla mu kaw bi man yaamal askaaroo zara bi xay raw lépp lu waay liggéey si lu baax tollam si benn bépp zara yàlla dina ko may man yaamal askaaroo zara bi charal lépp lu waay liggéey si lu bon si bépp zara yàlla dala ñàkk xam de boo demee waaye ñun ñu xamul dee ñu bàyyi ñu xam di dañuy waxal ndaxte alxuraan moom lu baax la amaloo ma benn aar Thank you. God bless and Hey, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سجودا كبدته صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء سلامة الإسلام غير فيجريني تركه مبايع ما لا يعني ترك مبايك سر الرسول الكريم وكل عام وأنتم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم بتحية إسلامية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يدعو سقفا مطهرا فيها كتب قيمة وما أمروا إلا ضل مسكين لهب أنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم معتاد صلى الله عليه وآله وسلم نانا من سلخ تاريخا كبكناك سيون يدعو في من مساك دي خمخم سلخ الله به تاريخا يا الذين خبين اليوم إلى الجنة فلسأ أجرا الكرام نعم. أيها المستمعون الكرام آبائي إيه وأمهاتي أعزائي الكرام أحييكم بتحية الإسلامية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 والنجم إذا هوى ما دل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وجه يوحى علمه سديد الهوى ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى sadaqallaahu l-aziim qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam suñu yonent bu tedd bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na sa yaati ala naasi dina ñëw si nit ñi zamaanu zamano laa yuklimuuna al ulamaa duñu teral borom xam-xami illaa bi sawbin xasanin ku dul borom yére bu rafet wala yaabuduuna allaha te duñ jaamu yàlla illaa fi sawni ramadaana لدروس ويلوكو ولا يق ولا يسمعون القرآن تدون دعو القرآن إلا بخون حسن لدور برام بعد بنيخ لا خيا أرسالهم سندقني أمونو كسا ولا صبر للفقرائهم تنيكني دنيون لا يقنعون بالخليل تدون جنة لتوتي ولا يسمعون بالكثير تدون دعو البرين himatuhum butuunahum seen yitte mooy na seen biir fees wa diinahum daraa'imahum seen diine mooy seen xaalis wan wanisaahum xibratuhum seen seen wanisaahum xibratuhum seen seen jigéen ñi ñooy seen penku ودينهم درائمهم سين دين موي سين خاري وبيوتهم مساجدهم سين كد ينوي سين جاكا يفرون العلماء دني داو بروم خم خمي كما يفرون العلماء من الزيب comme gaatu nu mi daweetal fa isa zalika su loolu amee ittalaahumullaahu yàlla dina wàcce seen kaw ay mugal bi salaasi xisaarin si jaf jëf awwaluha bi si njëkk yarfamu barkata min amwaalihim yàlla dina wàññi barke bi si alal wa taaniyatan ñaaree bi yusallidullaahu alayhim sultaanan jaasira yàlla dina wàccee seen kaw ay mugal ital wa saalisatan ñetteel bi غساتل نتابي يسلد يخرجون من الدنيا لن يجينا آدنا بخير إيمان سلآن تنغم صدق الله رسول الكريم وكل عام وأنتم بهاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من عند الله ويو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسب فقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم تلا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يساق الله فإن الله سديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على قصورها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين تبتد صلى الله عليه وسلم نينا isa zara fi ummati su feeñee sama xeet asara xisaali fukki jëf aqibam wallahu taala yàlla mu kaw mi dana leen mbugal bi xasarati xisaali si fukki jëf qiila ya rasulallahi di la ko yow yenent yàlla bi wa maa hiya yooyu noy yan mu wax isa qallala duaa soo leen néewalee ñaan yi nazalal balaa'u ma wàccee seen kaw ay musiba wa isa taraku sadaqaatu soo leen téye saraka halakatil mawaasi ma rey seen jur yi wa isa manawu zakaat soo leen téye azaka yi halakatil mawaasi ma rey seen jur yi wa isa jaara sultaan su ni ñi nekkee di tooñ mana al mataru ma téye taw mi wa isa fii muzinaan soo leen bëree ni ngeen di njaaloo halakatil mawaasi ma bëri seen ay deew mbégteem wa isa kasura riba soo leen balee di ngeen di lekk riba akasawumullahu bisinin yàlla dina wàññi seen at wa isa wa isa xaqamu bi xilaaf ma anzalallahu taala soo leen atteel wuutag li yàlla wàccee sullutallahu alayhim aduwwahum yàlla dina wàccee seen kaw Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit si dix récoltes apparaissent dans ma nation, si dix, si dix récoltes apparaissent ma nation, de dix Il a dit, ô message de Et si retient les accords, le bétail périt. Et si le sultan empêche la pluie. Et si la fornication augmente parmi eux, la mort subite augmente parmi eux. Et si l'usure augmente, le tremblement de terre augmente. Et s'ils gouvernent, relèvent, leurs ennemis seront puissants sur eux. Et s'ils s'écartent de l'alliance de Dieu, Dieu les affligera de mort. Et s'ils sont rachetés, de mesure Dieu les saisira pendant l'année kullu amin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu am am am am gërëm gërëm di ñaan yàlla lépp loo xamante ne la ñu def ci bis bi yal na leen yàlla borom bi fay yal na leen alquran fay yal na yàlla borom bi yokk leen ba ñu yëpp ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

Nafi Goli tamit ñu ngi koy defal bu baax di ko wax xam leen te bu ngeen fi nekk yëpp ñu ne dara góob teew fii rek ñu ne la dara ne la ñu bëggoon nag suñu yaay Abi Ndiaye mu ñëw fii ndax yaa Seyda dafa am benn service boo xamante ne koo defal dafa bëggoon suñu yaay Abi Ndiaye mu ñëw taxaw fii mu jox ko service boobu ndax wax dëgg yàlla suñu yaay Abi Ndiaye jàpp na ci yëf yi suñu yaay Abi Ndiaye taxaw na ko taxawaayu yaay suñu yaay Abi Ndiaye def na comme li dayu daara di def moom ak ay moromam yëpp. mais wax dëgg yàlla bien sûr nag dafa am loo xamante ne dafa ne bu ñu dama def conférence te du ko tëralee soxna Abi Ndiaye. bëggoon mu jógee si mu ñëw fii bien ko moom ci boppam mu jox ko ko su ko defee rek ñu daal di continuer incha allah Ndiaye. allo. yaay ak yaay yaay seeta moo xam ne la defal dëgg yàlla mu du la ko bëgg a jox ci bis bi mooy mooy du la a jox ci bis bi dëgg yàlla léegi nag dañu bëggoon suñu yaay Mariama Diallo madame Koli mu jox la ko mu nekk loo xamante ne surprise la boo xamante ne ñëpp la frappé wax yàlla ndax ki nga xamante moom la bëgg a jël jom na ko wax dëgg yàlla moo tuddee tur bi ñëpp dinañ ko xam nekkoon koo xamante ne aussi nekkoon na si koñ bi dëkk si koñ bi bëgg lii ñuy def ba tey xale bi nga xamante ne lañ gisoon si sànq muy ibbi alxuraan bi moom mooy yaayam xalé yu tëri li ba wàcc suuf mom moy yaayam kon mom wax dëgg yalla li mu namoon ci doomam sun borom mu ngay jàppale ba xale boobu togal fi jangal alxuraan ba mu jeex tak te amagul sax fukki at ak nga sande yalla da xamne borom bi subhanahu wa taala momul lolu lepp lu mu def si jambi rek allah kulli lolu da fay am te lepp lu mu nam ci doomu adam tamit allah kulli lolu da fay am nit ki mom dund rek nga am ak de ñaare ñoo am imma da dund ba sa heure dem dem jot nga dem ba imma nga dund tamit ba saa yu rek nga daal dem mais ki nga xamante ne moom la yaa Sayda bëgg a rendre hommage yaay Abi Jaay muy doom jot ñuy wax Kumba wax dëgg fa yàlla yaa Sayda moom la def photo bii bu ko rendre hommage suñu yaay Abi Ndiaye mu jox ko suñu yaay Mariama Koli pour mu teg ko ci loxoom ñu bëggoon tànt bi ñëpp tàjj loolu ñu rafetlu ko di ko ñaanal yàlla li nga xamante ne moom la def fu mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm seetal ay yaxam yàlla na ko yàlla teeru ci àddina yu gën a kawe ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga rafetlu bu baax wax dëgg yàlla mu nekk image bu rafet bu daw yaram koo xamante ne Moyai Zina, Zeyna di yaayu Ndeye di Abu wax dëgg yàlla yàlla ñetti bant loxo may te ñetti bant yooyu yëpp dugal na leen ñuy jàng alxuraan ki ci mag nag mooy xale bu mag ni ma wax sànq ko mooy taawam yàlla def na jàng na alxuraan ba mu jeex tàkk te xale ndaw la amagul sax wax di ko sant yàlla rafetlu di ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral ay yaxam yal ko ci sallallahu te tamit bu tombé ci dar bi nga xamantene la gënal aduna muy la 14 août wax dëgg yalla ñi ñaan yalla ko yalla borom bi yërëm ta xaru ko àjjana ci bëgg yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ñu bëgg wa woo tamit suñu yaay madam gey Ndeye Fatou Taraware madam Sall mam Sala Sow मरमसल ममसल सब मरमसल ममसल सब मरमसौ गाले गलो मरमसौ गाले galo ning tamit ñu leen di woo fii wax dëgg yàlla yaa seen tamit am lu leen préparé ñoom tamit wax dëgg yàlla bu ko teg seen loxo ak Mariama Diallo yelloo jox ko suñu yaay Mariama Diallo jërëjëf bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla seetal ko ñaxat yal na yàlla oyofal suuf ci kawam ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëj ko bu baax a baax a baax tëj ko bu baax tëj ko bu baax a baax tëj ko bu baax a baax nga ñëw bu ñu joxante nga ñëw bu ñu joxante leen. yàlla yal na yàlla rafetal kàddu yi yal na yàlla fay la yiw yal yàlla yàggal taxawaay bi guddal fan bi wéral cëri ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa ñuy tëj nag balaa lool nag ñuy tëj wax dëgg yàlla maire koñ bi wax dëgg yàlla ñu ngi ñaanal yaay sayda bu baax ne ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu yàgg a taxawal lii nga xamante ne mooy conférence bi saxal daaram ji gën ko màggal mu jël ci kaw di ñaanal ki nga xamante ne mooy madame Diop moom tamit ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant monsieur Koli di sant madame Guèye di sant monsieur Badji di sant jaara bi nga xamante tamit jaari jaari ba mi nga xamante ne moom tamit moo yor xale yi ak tamit ki nga xamante ne mooy jéena ba wax dëgg yalla moom tamit ñëw jàpp na si ci liggéey bi jàpp si bu baax a baax ba lii yëpp mën a sotti mën na yem nii ñuy wax ñëpp nag ñun mënuñu fay kenn yàlla rek moo a fay yàlla mi am fay yàlla na leen fay bëgg lii jag rek moo tax démb ba léegi sax nelaw def ma ko yàlla xam na ko wallaahi nelaw mun ma ko def yàlla xam na ko mais di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla fay yiw yàlla na yàlla mottali yéene bi yàlla yàlla yokk leen taaral leen lépp li ngeen bëgg rek suñu borom motal leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi balaa ñuy tëj dañoo bëggoon yaa Sayda moom mu sànni quelques kàddu rek gërëm ñi nga xamante ne ñoo ko jàppale ci bis bi jàppale ko ci waañ bi jàppale ko ci liggéey bi yëpp su ko defee rek ñu def ñaan daal di tëj ba ëlëk inshallah mais nak école bi tejul école bi nak tejul xalé yi conférence nañ mais dañu noppalu ñaari semaine ñaari semaine ñi xamanté nak ñoo fi jàng 9 mois su fekké ñew na yow mo jël vacances mu dañ leen bay ñu jël vacances ñu noppalu mais ñi bëgg a jàng cours de vacances ci vacances yi buñ noppaloo fi ak ñaari semaine inshallah dañuy continuer cours de vacances ci biir vacances yi di jàng alcorane ku ko bëgg nak da nga ñew inscrire 3000 francs chaque fois nga may nga fay 1500 loolu lañuy def mais wax deug yalla école bi tejul dañuy nopolu rek après bu yalla défé ñu ñu nopolu après ñu mëna dugulat alcorane bi daal ngay continuer inshallah ci bekk yantu bi sallallahu alayhi wasallam ñu jox ya sayda mu am ci kaddu yu sanni ñu daal di tej ñaanalante bu déwé inshallah inshallah A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang len di nuyu ma njëkk si sama dëkkandoor yi ndax nee nañ dëkkandoor mooy mbokk première mbokk awma seen fay yàlla rek am seen fay waaw ndax wax dëgg yàlla seen cofeel si man gis naa ko xam naa ko am naa fu ma ko nattee mais awma fu mu yem si ñoom wax dëgg yàlla ñu ma bëgg lañ ñu bëgg daara bi la daara bi man maa ko defal sama bopp yàllaa ko def te man jóguma woon sax pour jàngale business moo ma jóg moom laa jógoon mais yàlla xam na ne sama borom kër bu may jël si daara alxuraan la ma fekk samay mbokk ñi bëggoon naa wax li samay mbokk fekkee ko boobu maa ngi nekk xale bu ndaw ba nekk si digg ay mag ma raw ñoom ñëpp mais sama borom kër saa yu ne def moo ne dangay ngay jàngale ma ne ko déedéet man damay jaay pourquoi ça ma ne sama yaay amul doom bu man may taaw ñu ñetti jigéen business laay def yàlla di def su waxee ma weddi ba ñu ñëw fii ba yàlla def ma nekk di jàngale ña ma nekk na wax dëgg yàlla ñu bëgg ma lool bëgg daara bi lool bëgg alquran lool ndax man wax dëgg yàlla damaa sikk mais wax dëgg yàlla ñoom xooluñu loolu la nga xam ne mooy alquran loolu lañ gis si man ñuy ànd di ko def man nag du ma gërëm kenn nag sama ustaas bi ma àndal moom laay gërëm waaw sama ustaas bi ma nekkal wallaahi lu mu siy sonn du ma si du ma ko sonn du si sonn loolu sax sama monsieur bi di monsieur Koli sama madame bi di madame Diop sama seydaa bi di jaari Diallo baax xaw ma jàllo wala baax wala jaari baax lu si sonn du si sonn loolu dama dama sikki mais yow oustaz xoolul loolu monsieur Coly xoolul loolu madame Diop mi xoolul loolu man nag dëgg rek laa bëgg suñ ma nee dañuy xëy dañuy xëy si buñu nee duñu xëy dañ may yëgal man bëgguma fausé xale yi bu ñu ñëwee damay xale yi comme jot naa waxante ak seen waajur yi ma sa ma wëcceex ñoom kàddu rek bu ma waree xëy wéru naa wéru ma dama koy def mun naa mun ma dama koy def ku may jël tam dama leen ne lii laa bëgg kaddu bu taxaw soxlaw ma dara mais kaddu bu taxaw la bëgg yalla def nak law la ma sha allah ñama andal yépp gisuma ci kaddu bu nga xamni dañay essé kenn ku ne luma wax rek da koy def su su def tamit nako téla teel a yëg waaye wax dëgg yalla mënuma oustaz nak lu ci son wax dëgg yalla yalla mu nga xamni ne am fay yalla nako yalla fay alquran musse ko itam lu ci son yalla mu am mu am fay yalla nako yalla fay di madame job di di Seyda jari ñom ñëpp wa koñ bi nak ma ngi nuyu ñëpp di len ziar du euh, sama mag bi madame Sall Abi Ndiaye du madame Kane maire Sey ak ñeneen bàjjanu gox su ma limee damay juum ñoom ñëpp ak ña nga xam ne ba may commencé maax ñoom la ndax man du ma fa nekk naa ni ki nga xam ne démb dafa may neex ña nga xam ne ñoom laa commencé ndoo ñoom yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla bu gërëm naa ñëpp samay mbokk tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñëpp bay ma kenn samay mbokk yaay samay mbokk papa samay andi jàmm mboolem ñi nga xam ne ay xale bàyyi ma benn u kenn du gor du jigen du mag du ndaw umma yeb ma ngi len di nuy di len ziar di len ñaanal yalla yalla len yalla fay yalla na alxuraan fay bi bar si barke bi jaay mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaagne sallam jaageen jeuf wa salaamu alaykum wa rahmatullah fi amanillah wa alaykum assalam wa rahmatullah ya Seyda ñu dem ñu ngi lay ñaanal yalla yalla fay la yalla deugal taxaway bi yokul la kàttanal la ba lepp lo songu rek yalla suñu moon defal ci ndam li nga bëgg ya xam sa xol yalla nako yalla def li nga bëgg tamit arab bi egg yàlla na def te inshallah ñu dañ ci bay suñu war def suñu kéem tolluwaay kattan ba lépp li xamante ne rek fépp école yegg nañ fa bu soobee yàlla mu yegg fa su yegg defee rek ñu jàng fatiha salaatu fatiha tëjee ko salaatu ala nabi ñaan yàlla yal nañu yàlla jéggal yàlla jégal ñu suñuy bàkkaar jégal ñu suñuy rëcci rëcci ñu ñaan yàlla ñu teeg ay déwén yu bari bari bari ñi képp ku ñëw fi boo indee aajo yàlla na ko yàlla faj